demoon xew nag moo tax ma yaakaar ne looloo tax day fii li ñu fekk mu xumb lool monsieur le ministre Matar Ba ministre des monsieur le ministre Abdoulaye Sow ministre de l'urbanisme maître Senghor maire de Gorée Hein? adjoint spécial au maire de Dakar, président de la Fédération sénégalaise de football, vice-président de la CAF. Félicitations encore, Félicitations. Nous sommes fiers de vous. Président CSEC, président de la Ligue de football professionnel doyen Doudou figure emblématique de Grand Dakar je vous rends hommage je vous salue je vous salue respectueusement jigéenu Grand Dakar seen mbokk jigéen moo leen di nuyu di rafetlu lool sen mobilisation lii xew fii tay, dañ koy lu bu baax danaa ko rafetlu parce que ay infrastructure dafa manqué ci ndakaaru gi gis ngeen ne football bu ñu ko amee dañuy génn ndakaar dem dafa ji ay Thiès wala feneen amatuñu terrain football kon président maire de la commune de Biscuiterie je vous salue maa ngi lay nuyu bu baax di la delloo si wàccuwaay di nuyu nag bu baax a baax a baax a baax monsieur le ministre Amadou Ba maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay sargal maa ngi fàttaliku ne ànd nañoo ak yow ci liggéey yu bari mairie Dakar kon jërëjëf monsieur le ministre Amadou Ba. jigéenu Grand Dakar maa ngi leen di sargalaat ndax xam ngeen ne weer bii ñu nekk weeru jigéen ñi la. kon maa ngi leen di sargal di leen di souhaiter bonne fête mois de mars yëpp jigéen ñi ñoo ko moom. terrain bii ñu def dama ne encore kontaan nañ ci ndax gis naa nag engagement maire commune yëpp. Hmm. fan yii ci gannaaw inauguré nañ lu mel nii. du moins pose de première pierre def nañ ko ci commune par apar rek yenen maire yëpp ko ci gis mi ngi fexé nu mu défaré terrain ci biir commune am kon nak mais ma ngi lay féliciter di la encourager remercier particulièrement son excellence le président de la république bi la may terrain bi di remercier aussi sa partenaire yi nga xamné moy mooy Sénélec ak Vigie énergie ñi nga xamné japp nañ ci terrain bi defar ko ba mu melni di wax rek nak à la jeunesse sportive terrain bi sen terrain la ne ngeen lu bu baax sàmm ko toppatoo ko ndax nak alal bu bari lañ ci def yeen xale yi ngeen xamne yeen lañ ko defaral ne ngeen xamne li yeen ko mom ne ngeen ko sam defar ko nettoyer ko nga xamne wax deug yalla du gawa a kon daal guddi te taxaw bu ga wax mais balaa may daaneel nag may nuyu bu baax le doyen Mansour Mbaye Mansour Mbaye suñu papa maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm événement bu nekk wax dëgg yàlla boo ñëwee nit ñi xam ne ñëw nañ parce que da nga fa wax wax bu rafet da nga fa da wax wax yoo xam ne dana delloo si jàmm dana tax nit ñi ñëpp ànd bokk ndey ak baay kon jërëjëf yàlla nga yàgg ci suñ kanam jërëjëf merci